boo ne dafa tàkkoon de dafa may jaaxal ñun dañ jàpp ne dañ koo taaloon waaw keñ waaye dafa tàkkoon moom <laughs> beneen affaire la <laughs> parce que parce que historique bi buñ ci delloo moom xel xel xel day teey daal parce que ba muy tàkk kenn nekku fi <laughs> kenn liggéeyu fi te xaaju guddi la la commencé tàkk waaw loolu loolu ah ñooñu moolu kañ moom du lu ñuy warante ñaari yoon sax xaj na dañ koo ñemewul wax rek waaye man mi ñeme moom dama koy wax man. waaw waaw ñun dañoo yeewu rek gis ci journal bi ñuy tàgge marché bi léegi nag journal bi dafa ne accord sur la mort de Sandaga te boo nee accord ça veut dire que am na euh, réunion bu amoon ba ñu d'accord pour tuer Sandaga waaw je ne sais pas ñoom nee nañ daal ils sont d'accord pour tuer Sandaga donc ma jàpp ne complot la pour tuer le marché booy rey marché bi nag c'est que tuer tous ceux la sont parce que bërgi démb bu dañu woowoon chambre de commerce euh, pour la reconstruction du marché loo xam ne ñun bañ ko dalee ñaxtu di ko jooytu ça fait six ans parce que ba mu lakkee ba léegi ñun ku ñu ko defaraatal rek la ñu bëggoon ba eggoon nañ ci sax ba président la république ba mu ne il a été vraiment très sensible à nos doléances ah non en 2018 dañoo daje woon ak président mu promettre la reconstruction du marché avec un rajout d'un centre commercial New Look. C'était euh, au mois de juin 2018. Bon, on avait créé un comité de pilotage, Bochamene, mon donne superviser la faisabilité et la reconstruction. Et tous les acteurs étatiques étaient impliqués là-dedans. Nous pendant deux mois avec le ministre du Commerce. Nous conclure trouver un plan et un schéma. On a restitué les travaux en septembre 2018 di xaar validation président bon bi ñu wooyee bërki démb chambre de commerce c'est le ministre de l'urbanisme moo ñu woolu avec le préfet de Dakar bi ñu ñëwee on a trouvé la mairie de ville ak la mairie de la commune de Dakar Plateau bi ñu ñëwee c'était juste pour nous informer qu'un nouveau plan a été fait boo xam ne moom la ñu war ñu informer ñu que moom la ñu war a defaree Mar ñu listeel ñu ko en jàppo ñu xool ils nous ont montré marché bi ni mu mekk ni mu meloon état bi mu toll actuellement ak li ñu compté def fa waaw léegi bi ñu waxee loolu aussi ñun on s'est dit que lii ñu ñu wan ñun yëguñu ko xamuñu nu mu demee kenn inclure ñu ci biir on aimerait bien savoir plan bi ak ay détaayam naka la tëdde loolu presque moom lañ fa waxtaanee rencontre tey bi nag c'était la suite de la rencontre d'avant-hier entre temps nag ñoom ci rencontre bërki démb bi ci la ñu ne dañuy tëj marché bi samedi pour la reconstruction waaw ah, avant la tabaski muy samedi kooku ministre bi moo ko wax ñu ne ko ah loolu de bett nañu parce que li ñu wan yow reconstruction waxtaan amul dara amul ñun bëgg nañ ko de yàgg nañ ko wër yàgg nañ ko jooytu pour am ko mais dama yaakaar ne bu ñu ko waree am aussi dañu war a toog ci taabal ji bu ñu liggéeyee ba pare ensemble d'un commun accord ñu soog a fixer modalité yi ak naka lañ koy doxee. parce que aujourd'hui boo nu annoncé que samedi da ngay tëj marché bi que ak nit ñi nañu war jël seen disposition jël seen bagage ah loolu de day nuuru jaay doole te période bi ñu ko def dañ ñu ko defoon en 2013 à la même période donc syndrome boobu mooy revenir aat fi ñu toll waaw c'est le même scénario ñun nag suñu sañoon ñu ubbi ay table euh, ay kii de négociation pour ñu waxtaan xool naka lañ koy doxe ba kenn bañ cee loru parce que boo yëkkati nit aussi da ngay am foo koy recaser jógeel fii mais kaay toog fii en attendant ci sa biir wax monsieur le ministre dafa wax ne une partie sera reversée au centre commercial li mbay bi nga xam ne depuis presque vingt ans mi ngi fii tëje kenn soxlawu ko buñ ko soxla woon commerçant yi jël ko waaw buñ ko soxla woon commerçant yi jël ko on nous l'avait proposé en 2014 ñu bañ parce que ba mu ubbee jëndoon nañ ci ñun ba installé fu mais ku fa def un mois nga fayit xaw ma lu fa nekk nag mais en tout cas y a quelque chose là xamuñu ko ku fa def sa xaalis daal day seey dangay ngay jékki-jékki di rës di rës ba maa nga dem sa yoon léegi ñu bëgg ñu yóbbu foofu ñu ne non ñu bëgguñu foofu parce que c'était construction bi c'était pas adéquat ñun daal amuñ fu ñuy bëgg ñun dañ bëgg ñu defaral ñu te ki ñuy defaral moo ñuy yóbbu feneen rek parce que ñoom ñoo ne ñooy gouverner dëkk bi Mm-hmm. li ngeen wax mairie bi def seen ñun duñu def marche duñu def dara ñun on a beaucoup d'armes mais fi ñu toll wax dëgg yàlla duñu xeex ak buur de mën nañ def comme ñun ñëpp di def yuuxu toj pneu taal ay taaba taal ay pneu def lépp mën nañ ko mais. ñun ay républicain lañu dañuy respecter constitution bi ensuite nekkuñu ñoo xam ne ñun soo xoolee ay génération ñoo fi daje ku ci ne li nga war a liggéey ci économie réew mi bay nga ci sa waar boo ci bayee sa waar ba pare est-ce que li nga defar da ngay xëy aujourd'hui di ko détruire kooku amul sens donc ñun faut ñu ñuy xaar ci terrain boobu ñoom nag ñoo am seen doole ginnaaw yàlla bu fekkee dañ ñu bëgg a teg seen doole def ñu liñ ñu bëgg a def alors yàllaa ngi fi yàllaa ngi fi ñun tamit am nañ suñuy arme yoo xam ne duñ ko wax fii mais xam naa ne ki ci frotte si pic loolu moom lu ma leer la moom kooku nag wax dëgg yàlla do xel doy na doy na kii junj doy na borom xel te le coût est à dix milliards dix milliards te maître d'ouvrage boobu ñu wax ne moo koy defar il traîne beaucoup de casseroles wax dëgg yàlla. il a des chantiers yoo xam ne depuis douze ans mënu ko eggale kon s'il s'intéresse à Sandaga c'est pas pour rien waaw kon nag ñun ñun ku ndobin rey sa maam boo gisee lu ñuul da ngay daaw Petersen ku ne xam na problème am ñu ne une partie dañ leen di yóbbu Petersen Petersen ay nit a fa nekk fan lañ nekk dans la rue yow nga jële fi ay nit nga ne tu vas les dans la rue lan ngay yokk mais jokkee rek ngay yokk ñu ci des ñu ne leen Sàndakour Sàndakour dina fa nekk bëgguñu ko sax far ngelaw moo fa nekk ak soleil doo gis salaamaaleykum doo gis yokk yokkal ma jaay la dara amu fa ña fa nekk depuis six ans ñàkk pexe moo leen fa bàyyi waaye liggéey bu ñuy bu leen di avancé loolu amuñu ko fa loolu daal mooy li nga xam ne grosso loolu lañ fa jëlee tey. waaw ñu dégg seen délégué am na lu mu jot a wax ci mairie bi. waaw euh, lii euh, suñu porte parole wax muy Djibi Diakhaté defe naa ne affaire yi noonu rek la demee ndax euh, ñun affaire yi ça remonte de 2013 incendie bi 2013 ba nag ba à nos ñoo ngi ci topp di dox suba guddeeg bëccëg suba ak ngoon képp koo xamante ni jàpp nañ ne autorité nga boo xamante ni war nga mën a régler suñu problème dem nañ ci yow képp koo xamante ni tamit. sëriñ nga ci dëkk bi maanaam euh, les waaw les kii religieuses ñoom tamit gis nañ leen muy murit muy tiijaan laayeen ñëpp daal amuñu amuñu xaj ak seen daal parce que comme euh, ñun euh, ay commerçant lañu te it ay Sénégal lañu yoo xamante ni suñu millier de travail lañ ñu bëgg moo moo moo yàqu moo nekk foo xamante ni mënuñu fa def dara fu ñu gisee. yaakaare nag nañ fa am ndimbal rek dem nañ fa pour ut ndimbal ba yàlla def ñu gisee le président ñu jaaree ko ci euh, Mimi Touré mu yóbbu ñu ci président président lim ñu njëkk a wax bi ñu fay dem on était en nombre mun naa ni plus de 500 personnes duggoon nañ fa ñëpp la recevoir salle des ñu toog ak moom mu wax ñu li nga xamante nii lu mu gëmoon la. loo xamante ni yaakaar nañu ba léegi ñun ñu ngi koy gëm yaakaar ne dee moo koy dindi wala mu jóge fi keneen ñëw fi waaw ci projet am la woon waaw maanaam mu boole Sandaga ci les projets yi nga xamante ni ñoom moom moom mooy prioritaire ñu ne Sandaga maanaam xam nga marché yi y quinze marchés yoo xamante ni ñoom la ñu waroon defaraat Sandaga était numéro un marché Tilène bu nekk euh, Ziguinchor moo nekkoon numéro deux ak marché Ndoumbé Diop bu nekk jurbel euh, bon bi ñu demee ba toog ak moom lim ñu wax lu leer la woon muy lan muy je vais refaire le marché au fonds propre à mes fonds muy euh, dem ba laajte ni kan moo nekk kan moo nekk war a defar marché bi woo ministre du commerce euh, ministre du commerce de l'époque nekk na monsieur aline Sarr mu ne ko Ah, le le maire de Dakar Plateau de mi ngi woon ci di ak benn projet culturel mu a ko nekk mu arrêté parce que affaire bi man maa koy jël defaral ko sama bopp daal ko ni nag ma recevoiral ñii ministre bi lay waxal de par téléphone ah devant vous devant nous du ni ko recevoiral ñii mardi prochain on était mercredi mu ne ko recevoir leen mardi prochain mardi prochain bi ñu demee on a créé une euh, comité de pilotage boo xamante ni regroupé woon na képp koo xamante ni rek Sandaga intéressé na la mais quant à ñëw jël suñu projet sànni fële indi ñu beneen projet boo xamante ni dafay wàññi cantine yi boo xamante ni lépp lu ñu defoon fii kiiwul te lii ah te day yokk njëg yi kooku la ñu mënul nangu te duñ ko nangu tamit ba mukk jaral nañu nag lu nekk suñu bakkan jaral nañu ko parce que nous sommes des sénégalais te it dañuy fay impo

su fekkee ñoom euh, bëgg nañ ko def rek nañ ko def parce que gis nañ fi liggéey la journée ah benn équipe la journée beneen équipe beneen équipe liggéey la nuit gis nañ fi ay projet yoo xam ne noonu lay demee donc ñooñu suñ la waxee ni mun nañ liggéey benn bâtiment ci un an surtout muy doon loo fe loo xam ni réflexion lay doon réflexion lañu waxoon marché bi. ndax kenn voilà parce que kii bi architecte bi bu mu ñëwee dafa sondé. marché bi yëpp ba mu demee benn poto la gis boo xam ne ñu mu ne c'est défectueuse mu ne poto boobu la ñuy refaire à part poto boobu mu ne marché bi kenn mun nañ ko bañ a toj parce que batiment bi moo gën a dëgër actuellement batiment yu bees yi ñuy tabax parce que travail bi c'était à l'époque muy batiment bi ci biir nga xam ne kenn nekku fa xam nga ñi ngi wax naan bu daanoo dafay indi ay jéeya dafa indi batiment boobu kenn nekku fa yàq des ordures là-bas waaw non non loolu su daanoo nii lay def bu daanoo du du du doon euh, bombe boo xam ne day exposé day explosé di fu nekk xeer dem fa non bu daanoo nii lay def donc kon ah te loolu sax dafa amul dafa munul daanu munta daanu parce que ñun ñu fi nekk xam nañ ko loolu maanaam euh, kii la daal boo xamante ni dañ koy def pour diaboliser pour boole nit ñi ak euh, commerçant yi xamal leen ni que fi ñu nekk deuxième Joola deuxième kii lu nekk ñu wax ko loolu. fasinu waxin la boo xamante ne dañ ñu bëgg léegi nañu loolu lañ dul nangu moo tax fépp foo xamante ne mun nañ fa dem dénoncé ni ko ni loolu ñu wax nii amul dañ koy def ku tey koo xamante tamit da nga ko bëgg a weddi tamit bu la neexee nga ñëw vérifier ba xam lii commerçant yi wax am na wala amul bañuñu ko defar marché mais contexte biñ ko buñ ko bëggee defaree la ñu nanguwul bañuñu ko toj sax marché bi aussi mais contexte ñu ko bëggee tojee tamit la ñu nanguwul lépp lu nit di def ah te commerçant euh, te président waxoon ñu ne lépp lu ñuy def dañ leen ci associé duñ leen defal lu ngeen bëggul loolu mooy li nga xamante ne je crois que président foofu defe naa ne du wax waxet que lii la lii lañ leen di defal yéen ci euh, yéen la ñuy xool li ngeen bëgg lañ leen defal mais li ñu bëgg mooy lii nañu defal li ñu bëgg comme ñun ñoo fay nekk c'est tout simple. waaw ñu ngi jaajëfal ñun tamit di leen wax ni kontaan nañ ci yéen. ndax euh, ñun tamit yéen la ñu am pour ngeen porter suñuy voix ndax euh, dëkk bi dégg ko waaw may répété waat rek ni ku nekk sa teraanga am sa teraanga nga am ndax autorité yii fi nekk actuellement dañuy jiite bi ñu bëggee faluwaat lu mu leen jaralul amul ñun tamit lii la ñu am buñ ko bëggee nangu ci ñun lu mu ñu jaralul du am